ay bés rekk des ci tabaski marché central bu Kaolack xumb foo tollu di dégg bruit machine yi yi la tailleur ak apprenti taxaw temb ngir mën a ñaw yi laata bu su julli. ñoo ngi bëgg bëgg client yi la waaw ñaw jàmbur yi ñu jëm ko ñaw yëpp egg ñëpp mën a sañse daal ñëpp gis seen bopp ñoo fii client bu fi indi sa ñaw indi dinañ la ko ñawal mais am dañuy ba tabaski bi ay. ay quelques semaine ñu bëgg laa ñëw loolu di la ko forcer mais loolu bu tardé ñoom ñoo tardé seen bopp quoi même parce que nekku si téere. ñuy yéex a indi seen ñaay moo ñu sonal waaw événement bi loolu mooy problème bi. day métti xam nga tamit nga toog ba ay 4 heures matin doo ko wàcc balaa ngaa yegg sa kër 5 jot nga julli fajar tëdd ñett waxtu ngay tëdd xëyaat man 9 heures fii la may fekk loolu dafa métti da ngay dem sa doom fu nga gis ne sa problème la na trop mais nag comme ñoo ko taamu pour nekk foofu. mënuñ ci dara. doon situation bu métti ci ñoom ñuy xamle nii lu ci ëpp jigéen ñi ñooy taxaw ci seeni xeef waaye dinañ def lépp lu ñu mën ba ñëpp jot ci seeni ñaw. comme déjà presque un mois lañ tàmbalee fanaan un mois tàmbale ñoo fanaan bilaay 11h la ñuy xëy wàcc presque ay 9h ay côté yooyu nga xam ne loolu dafa métti vraiment événement mooy loolu. incha allah dañuy jël loo xam ne leer na da nga koy mën a ñaw rek parce que bëggoon tas yaakaar te xam ne tas yaakaar. lu ñu jël moom lépp lu ñu jël moom incha allah bu soobee yàlla noonu day pare moom loolu moom day pare moom. xam nga tabaski moom mel noonu rek moo nekk benn bés boo xamante ne ñëpp a bëgg a soxla te loolu du mën a ne benn bés la rek mais ñëpp a nekk da ngay da ngay bay bëgg a dee mais fu nga jeexal ñooy problème bu rëy la mënu mënu ne mënu ne parce que ñu la koy joxee la ñu la koy joxee dafa am ñoo xam la ñuy doog a ñëw indil la ko nga sonn si mu leer na léegi mënoo koo pare boo na ko duma mënuma koo ñëw mu ne la koy tegal noo xam def ko nooy def da ngay jël rek léegi bu paasee nga jéem a yeggali. bëgg a bëgg client yi rek waaw ñaw jàmbur yi ñu jëm ko ñaw yëpp egg ñëpp mën a sañse daal ñëpp mën a gis seen bopp waaw noonu daal lañ koy dundee. liggéeyub tailleur aar la bu leen di jox ay koppar. waaw tabaski bi moom dañ siy gis suñu bopp bu baax a baax a baax ñu sant yàlla bu baax parce que tailleur Kaolack moom amul lu tabaski tabaski dañ gis bu baax ñu bu baax waaw client yi waaw ñëwal nañ leen yu rafet waaw instant yi moom jël si bi moo des waaw client yi ñoo war a ñëw nag jël seen ñaw yi. waaw ñoo ngi sant yàlla rek waaw ñoo ngi sant yàlla xaalis moom bëriwul loolu moom waaw yaa ma gën a xam parce que waaw non xam nga boo liggéeyee trois mois tim toog six mois xam doo ko liggéey da nga amul la nga dencoon moom ngay lekkaat rek loolu la rek <laughs> non tabaski daaw moo dàq bu ren waaw parce que ren bi moom dëgg fa neex yàlla ñaw yi teel nañoo ñëw mais xaalis mooy yéex a am loolu moo ñu gën a sonal nag waaw mais tabaski daaw moom dëgg fa neex yàlla ci laa gën a gis sama bopp daal ni ki ren non si xam nga rek xaalis bi moom da nga koy dégg noonu rek mais demeewul noonu xaalis moom dégg la rek dégg-dégg lañ ci am non si mais xaalis bi dégg-dégg lañ ci am noonu rek am na xaalis boo encaisse moom lu bëri moo ngi lay xaar lu bëri bëri njaboot gaa ngi lay xaar mère yaa ngi lay xaar soxna si ñoo ngi lay xaar loolu la fa demee affaire yi moom mooy loolu sant la rek sant moo fi nekk nii rek am dafa doon loo xam da nga koo bëggal suñu bopp su fekkee loo xam ne ki loo bëggal sa bopp doo ci xaar yenn yi parce que ëllëg ngay sóor fetu tabaski ñu bari taamu ci beesal seeni yére li ni mel tax tailleur yi jamono ji xat ñu ngi yendu ak fanaan marché ngir mëna joxe ñaw client yépp